L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه amma baad mbokki julit yi ma ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ñu xam ne bokk na ci mandarga yi ngëm yàlla gu dëggu ak doylu doylu mooy jaam bi gërëm li ko suñu borom tabaraka wa taala sédd ak lu mu néew néew baña a xool bañ li nekk ci loxol ñeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne taxe na koo xam ne jébbal na boppam yàlla suñu boroom tabaraka wa taala wërsëgal ko loo xam ne doyloo na ko def ko itam muy ku doyloo li ko boroom bi tabaraka wa taala jox kooku day mi ngi dund ci ak taxe nabiyullahi suleymaan alayhi salaam ba nga xamee ne yónnee na buru saba di wo ci diine te buru bi di nattu ba xam kuy jaare ci diine di wut aduna lam deet ndax am na ñoo xam ne àdduna ci diine la ñuy jaare di ko wut moo tax mu ne nañ ko yónnee alal ju bari seet ba xam nu muy tontu waaye suleymaan bañ ko andilee alal ja daf ne leen atumit doone nii bi maal yéen da ngeen may jéem a dolli alal fama atani allahu khairun mimma atakum lima yalla defal mo gën lim len defal yeen lim ma jox ci alal joxu len ko rawatin nak lim ma jox ci diine kon ci diine la len di wo waye doyuma len alal bu gën wuy ci nak dina len andil armée bo xamne du gën ko meuna dekk yonent bi alayhi salatu wassalam ku gërëmoon la ku doylo won la liko borom bi tabaraka wa taala wërsegal daawul laaj kenn dara daawul xool itam lu keneen yor ci njalbeenam ci ndawam doon na liggéey ci alali Khadija radiyallahu anha di ci commerce di ca am bénéfice bu bari waaye mësta xemmem ca alal joojee dara lu dul lañ ko cay fay rek di dem lislaam demee ba taxaw itam alal ji ñu daan jële ci bu ñu xeexee ak nooni lislaam yi alal jojé daana bari fi mom lool way daw ci jël dara da ko daan wat ñi nga xamné ñoy sahaba yi ñi nga xamné ñoko ajo mbokki julit yi ak doylu nak li ci nekk ci ay ngeedel kenn mënu ko tak la ci jitu moy day barkel, li jam am lu mu neew neew day am barke ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam neena am kom nekkul ci alal ju bari waaye nee na am koom ci bakkanu nit ki lay nekk ci xolam lay nekk ci xelam lay nekk nga gis ku bari la lool waaye fu mu toll ma ngay férfér yi mel ne amul dara nga gis ku ñàkk lool ma nga féex lool du ko yàqal nelaw du ko yàqal lekk du ko yàqal dara ndax ak doyloom ci xolam la nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne koo xam ne daal xëy nga nekk ci sa biir njaboot am jàmm ci saw yaram am sa dépense bis neena dafa melni aduna lepp lépp matal nañ la ko mi ngi ci sa loxo nga xey sa kër sa njabot wër la saw yaram yego ci dara loy jambat te dépense bis bi am nga ko neena dafa melni aduna lepp ngi sa ndax ëllëg mom xamoo sax dang ko fekkem det doylu dafay tax nit ki feex ci bakanam ki doylu foko fekk ci noflay lay nekk ci kóolute lay nekk ci xel mu dal lay nekk waaye ki bari téef nga xam ne moom du gis li mu yor li nit ñu yor rek ci la tëg bët kooku fekk ko fekk ci jaaxle lay nekk foo ko fekk du amok dal ndax ñu xam ne doom aadama valeur am ak wàccuwaayam nekkul ci alali àdduna ju ne ci loxoom wala mbooloo mu ko wër borom bi tabaraka taala mi ngi wax ne am na ñoo xam ne dañ ne nun dey noo ëpp alal noo ëpp njaboot kon noo gën te itam kenn du mbugal ndax jàpp ne seen alal ji ak seen mbooloo mi leen wër tax na kenn du leen mbugal nahnu aksaru amwalan wa awladan wa ma nahnu bi muazzabin suñ borom ne na nga leen wax ne yàlla mooy yaatalal wërsëg ku ko soob moo koy xatal ci ku ko soob itam kon ki am wërsëg wu yaatu du ngóoraam du njàmbaaram ki wërsëgam xatitam dug sam gannaaw ma ngay sabab lam man waaye suñu borom mooy jox ko soob moo tax mu ne walakina aksara naasi laa yaalamuun ñu bari ci nit ñi xamuñu ki am dañuy jàpp ne njàmbaar la ak mën a wut la ki néew la ñu defee ak yaafus la borom mi ne du seen alal yi wala seen njaboot gi seen mbooloo mi moo leen di tax a jege bari mbooloo wala bari alal taxut a jege yàlla kii jege yàlla daal nee na man amana wa amila saaliha ku gëm yàlla tey def lu baax fa ulaika lahum jazaau diafi bi ma amilo nee na ñooñee dana leen fay pay goo xam da koy ful ca la ñu jëfoon wahum fil xurufaati aminuun te ëllëg ña nga ca néegi aljana ya ànd ak jàmm mbokki jullit yi ñu xam nag doylu nag am ay sabab ak ay yoon yoo tax yoo xam ne tax jaam bi man am la ci jiitu mooy mu gëm ngëm yàlla ko dogu ci ne suñu borom tabaraka wa taala mooy wërsëgal faw mu gëm ne wërsëg ci borom bi lay jóge inna allahu huwa razzaq gëm ne itam yàlla bind na wërsëgi jaam ñi lu jiitu mu leen di bind gëm ne itam benn bakkan du faatu lu dul matal na li ko borom bi tabaraka wa taala bindal ci wërsëg matal na itam ab digam lim fi war a am ci aw fan ñaar yooyu fokk nit yi matal ko matal aw fanam matal wërsëgam ñaari ñooy ànd ku sa wërsëg jeex rek foofu la saw fan di yem ku saw fan yem itam foofu la sa wërsëg yem amir ibn abdul xays radiallahu anhu mi ngi wax ni daal ñeenti aaya daal bu ma ko jàngee duutuma am soxla ci nu ma gontoo bu fekkee ak suba laa ko xëy jàng bu fekkee jàng naa ko ci ngoon itam duutuma am soxla ci nu ma xëyee rek baax na ay bu njëkk bi moy fi suñu borom di wax ne ma yaftaxi llaahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha neena yàlla lu mu ubbil nit ñi ci wërseuk ci yermane wërseuk ak wér ak lépp nga ci biir neena kenn mënu ko ko xagn kenn mënu ko téye waye neena lu mu téye itam nak kenn mënu ko joxe wa ba yumsik fala mursila lahu min ba'di benen ay bi suñu borom di wax ne wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli yàlla bu namé ci yow aw yiw kenn mënu ko fank kenn mënta té nga jot ci yusibu bihi man yasha'u min ibadi benen ay bi mooy fi suñu borom di wax ne amul dara luy dox ci kaw suuf ludul ne suñu borom mo war lu wërsegam wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin te fu mu nek moo xam fu mu saxla wala fu muy jaar di jàll la lépp yàlla xam na ko beneen aaya bi mooy suñ borom di wax ne sayaj'alullaahu ba'da usrin yusra saa yu nit ki nekkee ci jafe-jafe na xam ne ak yombal moo cay topp ñaareel ba ci sabab yi tax nit ki mën a amuk doylu mooy jaam bi di fàttaliku fa mu toll jeex gi àdduna di jeex li fi nekk itam jeex gu muy jeex loolu ku ko xam ki woomal du bew ngir koom mim am waaye ki ñàkk itam du naagu bay mooy yàlla wala muy xarab suñu borom tabaraka wa ci ak ñàkkam ndax kat borom bi nee na ki am le lu bari ak ki am lu néew ñépp fi lañ koy bàyyi te dem wa tarak taraktum maa xawalnaakum waraa ko ñetteel ba jaam bi di xool ki nga xam ne moo ko gën a néewle ci alal moo ko gën a néewle ci daraja te bañ xool ñi nga xam ne ñëw ko féete kaw ci alal ñëw ko féete kaw ci darajay àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale na ci hadith bo xamne muslim solo nako mu ne won ki len xol ñi len fete suuf ci am ami aduna te khol xol ñi len fete kaw ndax ne loolu kat moy tax du ngeen xeb li len borom bi tabaraku taala defal ci xewal ñentel ba jambiar bi yar sakanal ci di sakanal ni muy dépenser liko yalla wërsegal mu koy baña yaq ndax kat suñu borom nee na wakulu washrabu lekk leen te naan waaye nag wala tusrifu bu leen ëppal bu leen yàq innahu la yuhibbul musrifin suñu boroom bi muy wax melokaani sifaat ibadu rahman muy jaam yi nga xam ne jaam yu mu gërëm lañ xam ne nee na ñooy tabbi aljana bu ëllëgee bokk na ci seeni melokaan isa anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu nee na bu ñuy dépensé du ñu ëppal waaye du ñu ngott tam ba muy manqué wa kaana bayna zalika qawama lu ñuy def lu ne dañ koy calculer ba du ëpp du yées yam ca kep juróomeel ba jam bi fas ne suñu borom tabaraku taala mo def raw wërsëgi jam ñi mu rawaté tollole wuñ ko ndax lolu ay hikamam la ay secretam la ndax ñu mëna dundal kaw suuf ci ndax itam ñu mëna wéccenté ay njariñ kenn ku nekk di soxla sa morom di liggéeyal sa morom mu lay liggéeyal mais bu kenn ku nekk amoon lu ko doy boo dee jaay doo gis loo jënd boo dee liggéeylu koy liggéeyloo mu ne la man liggéeyu du ma liggéeyal kenn ndax am naa kon adduna bi du mën a dox waaye moo def am am yi rawaate man man yi rawaate kii ma ngay wut liggéeyal yow it yaa ngi wut ku la liggéeyal mbu liggéeyal la nga fay ko su ko defee loolu muy dundal kaw suuf moo tax borom bi ne ahum yaqsimuuna rahmata rabbik nahnu xasamna baynahum maisatahum fi lxayaati dunia mu ndax jaam yi dañoo mel na ñuy séddale yërmande yàlla yàlla nee na man maa séddale sabab yi tax ngeen mën a dund ci kaw suuf maa ko séddale kii man lii tale lii kii man lii tale lii su ko defee ñu koy fa weccante wa rafaanaa baadahum fawqa baadin darajaat ma yëkkati ñenn ñi ci kaw ñi ci des ci wàllu am amu àdduna ngir lan kenn ku nekk mën a liggéeyloo sa moroom yow mi jël nit di ko liggéeyloo defe na yow sab surga yow it ab surgaam nga ndax yaa ngay wuti loo ko faye fa ngay liggéey ba am fa loo ko faye moom itam mu liggéeyal la nga fay ko kon kenn ku nekk da nga liggéeyal sa morom moo mun la yettaxisa ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmaun waye nag yermade suñu borom tabaraka taala mo gën mbollem lu ñuy dajale fi ci aduna ki am la lu bari ak ki am lu néew lépp ngëneel nekkul foofu suñu borom tabaraka taala dellu wax ne mo leen def ngeen di wutante ci kaw suuf génération par génération ñenn ñi mu yëkkati leen ci kaw ñi ci des ci wàllu am amu àdduna ndax lan li yabluwakum fii ma ataakum borom bi da leen di nattu ci li mu leen jox bu dee ki mu jox lu bari dana ko nattu ba xam dana sant yàlla am ndéet ba xam ndax li ko yàlla jox dana ko def fi yàlla bëggam ndéet bu dee ki yàlla jox lu néew dana ko nattu ba xam dana muñ wala déet wala ndax dana tàbbi ci lu watt tàbbim ndéet kenn ku ci nekk am nattu la ci yow juróom-benneel ba ñàkk ak woomal lenn lu ci nekk ab nattu la ki ñàkk ñi ngi ko nattoo ñàkkam googu ak aajo googu mu aajo woo waaye ki am itam ñi ngi ko nattoo am amam boobu ak alalam jooju kenn ku ci nekk nag suñu borom dana la taxawal ci kanamum ëllëg laaj la ba xam loolu mu la nattoo woon noo ca def wa nabluukum bi sharri wal xayri nattu nit ñi dañuy jàpp ne lu metti rek lay doon mais léeg-léeg lu neex lay doon wa nabluukum bi sharri wal xayri danaa leen na ci aw ay nattu leen ci aw yiw fitnatan fitna leen ko wa ilayna turjaun yéen ñëpp ci man ngeen di dellu si Tirmisi soloo na ak ibnu Maaja jële ci Anas ibnu Malik bu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne daal ak pay gu mag jàmm baa ngi koy ame ci balaa bu mag ku la gën a rëy ay nattoo ki balaa bu ko muñee moo lay ëpp ak pay mu ne suñu borom tabaraka wa taala bu soppee aw nit da leen di nattu koo xam ne gërëm nga nattu borom bi tabaraka wa taala mu gërëm la koo xam ne nag naqarlu nga sànje nga natt borom bi tabaraka wa taala bu boobaa doo am ngërëmul suñu borom bi tabaraka wa taala bi alayhi salaatu wasalaam ne ëllëg yowmal xiyaam jaam bi du buuse fa taxaw lu dul ne danañ ko laaj ñeenti mbir dundam bi ci lum ko jeexal dund boobu ci biir dund bi ak ndawam ndax ak ndaw moo gën a wëlëre ci biir dund bi ci lan la ko ràppal alalam fum ko jëlee ak fan la ko dépensé xam-xamam lan la ci jëfe lii kenn du jàll yowmal xiyaam lu dul ne tontu nga ci bu tontu yi jubee nga mucc bu tontu yi jubul nag loola mooy doon alkande juróom-ñaareel ba bokk na ci li tax a mën a doylu itam xam ne alal ak daraja ak cëri àdduna yii doonul ne moo gën ci li yàllay joxe ba ku ko am ñu jàpp ne moo gën ñi ci des déedéet borom bi nee na li gën mooy xam-xam boo xam ne ci ngay xàmmee dëgg ak neen ci ngay mën a jaare ci njub moom la tudde xikma yu'til xikmata man yasha wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasira nee na ku ko soob mu jox la xam-xam boobu ku mu ko jox nag nee na jox na la yiwu baree baree baree bari wa ma yazakkaru ulul albab aaya ba ko jiitu day wax ne as seytaanu yaidukumul faqr seytaane da leen di dig ak ñàkk di leen wan ne ku ñàkk rek tekkiitoo dara ba tax ne soo amee sax dalay wax bul joxe ndax soo joxee li nga am day wàññiku te bu wàññi ko boo néewlee ki la eppele mo la gën seytaane lool lay def ci xeli nit ñi suñu borom nak ne dedet al hikma muy xam-xam bu diine bu leer qur'an ak sunna nit ki xam ko xam ak njub top ko loolu mu ëpp mu gën fuuf alal ndax alal ji moom fitna rek la mën naa dox sa digganteeg jaamu yàlla mën naa andi noonu sa digganteeg nit ñi amma xam-xam bi nag moom ak njub la lay teg te itam da nga ci mën a jariñ ñeneen te itam man nga ci am felu doomu aadama yi jëlee nañ ci xusayfatu bnul yaman radiallahu anhu loolu moom ay waxam la mu ne yaa masar alqura yéen mbooleem jàngkate alquran yi yéen ñi nga xam ne am ngeen xam-xamu diine istaqimu ne leen coow ci yoon bi dem faqad sabaxtum jiitu ngeen sabxan baidan jiitu gu sore sore sore nee na yow mi jàng alquran yaa xam mokkal nga ko wala sa mokkaloo ko waaye jàng nga ko yow mi jàng sa diine ba xam ko nee na yow day na nga xam ne ku egsiwul foofu nga yegg jiitu nga ko mu ne su ngeen fi nekkee na di geestu ndeyjoor ak càmmooñ jàpp ne nit ñi ñoo leen ëpp ëppale jàpp ne nit ñi ñoo leen jiitu nee na boobaa sànku ngeen cànkute goo xam ne gu sori la laqad leen dalalan baidan ndax yéen a ngi woo ak lu foor waaye yëgu leen ko bay geestu la ñeneen ña yor ndax ñeneen ña li ñu yor lu mu bari bari fi lañ koy bàyyi bu ñuy dem yow na li nga yor booy dem da nga koy yow mi jàngoon alquran jàngoon xam-xamu diine daan ko jëfe loolu moom booy dem da koy yóbbaale borom bi tabaaraka wa taala fay la ko ndax moo tax ñuy wax ëllëg ci jàngoon alquran bu duggee biir aljana alquran ja ba tey day nekk ci boppam moo tax ñu koy wax jàngal alquran te yéeg muy tari alquran di yéeg kon moo lay xamal ne kon alquran di indaale ne ko foofa moo tax mu mën di ko tari di yéeg ci biir aljanna beneen xam-xam bu mu mën a doon nag bu dul alquran moom kuy dem doo ko yóbbaale fi nga koy baax bokk na ci jaglay ku gëm yàlla day muñ bu ko nattu dalee bu ko lor dalee bu ko ñàkk dalee waaye tam day sant borom bi tabaraka wa taala bu fekkente ne mi ngi ci mbégte mi ngi ci wér mi ngi ci koom-koom loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yéemu naa ci mbirum jullit ku gëm yàlla nee na mbiram lépp yiw la nee na loolu nag ku gëm yàlla rek moo ko am nee na mbégte dikalé mu am xéewal am wér am alal am jàmm sant yàlla yëg ne lii yàlla moo ko jox suñu borom bindal ko ca tuyaaba bu fekkente ne nattu dal na ko moo xam feebar la moo xam ak ñàkk la moo xam tuumuranke la mu muñ suñu borom tabaraka wa taala bindal ko ca aw yiw kon jullit situation bu mu mën a toll rek mën na caa am aw yiw moo tax ñu naan alhamdulilahi ala kulli xaal xaal boo toll rek mën naa nekk aw yiw ci yow moo tax asaali bi kenn la ci sooraaw bani abbas al asrul abbasi doon wax ne daal xiyal atu mu ne daal doylu mi ngi nii falsamha ta ish malikan nee na taqoo la ko doylu nee na kon da nga dund mel ne buur nee na boo amee doylu booy dund da ngay mel ne buur ni buur di dunde ngay dunde loo lam yakun minka illa raxatul badani donte nee na amoo dara ci àdduna nag lu may noflaayu yaram alale àdduna amoo ko waaye da ngaa doylu waaye am nga jàmm yaram nee na boobaa yaag buur yi wala sax yaa leen gën aw dundin mu ne xoolal ñi amoon àdduna yor ca lu baree baree bari ndax bañ fi jóge yóbbaale nañu dara lu dul càngaay ak wëteen wu ñuy sànc seen i nopp ak seen paxi bakkat nee na loolu dong la ñuy yóbbaale bu ñuy dem ak lu luñ fi bari la bari la bari la kon mbir ma nekkut ci alali adduna ju bari loolu garde ko rek la kii garde nag buy dem dafay bàyyi lam doon garde keneen ñëw garde waat rek ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu barkeel barkeelal na suñuy wërsëg te def na ñoo xam ne dañuy gërëm li leen sedd ci wërsëg te baña def aduna moy suñu yitte ji gëna a suñu yitte suñu xam-xam bépp itam yam ci aduna waye mu baña def ak ñak ci suñu bëtt waye mu def suñu koom suñu koom ci suñu xol bi rahmatihi wa huwa arhamur rahimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain